بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأعلى قدر أهله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قيل له يا رسول الله ayu julasaa'inaa xayrun qaala man dakkarakum allahu ru'yatuhu wa zaada fi cilmikum mantiquhu wa dakkarakum bil aaxirati cilmuhu sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi ajmain bokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu di ziyaara di ndokkeel Cheikh Muhammadul Muntaqa xafidahu llahu taala wa ayadahu wa nasarahu wa di ko ndokkeel bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xam lëggéeyal na ko yàlla fas ci yéenee jariñ jaami yàlla yi yàlla na ko yàlla àggale su yàlla nangoo ñaan ngi yàlla na ca sëmbërtal mbooleem yoxo yi nga xam ne tàbbi nañ ca ak mbooleem xel yi nga xam ne dotti nañ ca ba sotti ca muy liggéey boo xam ne tolloo naag lu jot rek yomb waaye waxtu wi mu jote fekk nañu soxla ko lool li ñu soxla lum doon mooy xam-xam bokk yi bu ñu ko misaalee ci daamar yi nga xam ne ñëpp ko xam daamar mën na am ay junek nekk te du ko tee di mën a soox bam des motoor ba moteur ba moom fa mu nekk kaccate foofu lañ koy fekk buñ ko fa jëlewut mënu fa jële boppam gàllankooru nit nag ba ca gën a rëy du ñàkk ay yoxo du ñàkk ay tànk du ñàkk ay gët waaye mooy ñàkk xam-xam ndokk bi ko sëriñ bi xamee fab yitteem jëpp jëme ko ci ànd ko ak ñim ko àndal ñëpp ba ñu jàpp ne bis sàngam buñ ca àggee dees na tàmbali yàlla nañ ci yàlla àggale te ñu weesu ko jàmm xam-xam nag bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana jataay yi ginnaaw nit mënut a ñàkk a toog ak wu nit ana bu ca gën mu ne ko boobu boroom xam-xam ndax boo ko gisee rek dana la fàttali yàlla boroom xam-xam bu jëfe xam-xam foo ko laaje xalaat bu la xalaatalee boo sa jàppee da nga dem waaye it saa buy wax moom nga xam ne da koy déglu muy wax sam xel dinaan lapp ci àllaaxira duutu bëgg dara ci àdduna am na nag ñeneen ñu ko tënke ci ak leer la moom xam-xam leer nag bokkut ak làmp yii ñuy niitoo di dox guddi waaye niit cib xol euh, leer gi tax ñuy wax xam-xam cib xol lay nekk mooy tey boo nekkee ci sa biirum néeg ba yàgg courant ba dem soxla sa nga am ca la nga dencoon fa nga ko denc doo soxla làmp ndax lu leer nañ la ci yow fam nekk làmp tàkk ak bañ a tàkk moom ngay yamale euh, xam-xam nag bokk na ci ñaar yonent bi sallallahu alayhi wa wax tamit addis bu wér am na bu mu waxee ne nit ki bu fi bàyyi ko maanaam bu faatoo léppam day dog waaye lim na ci xam-xam ne ku fi bàyyi xam-xam bu nit ñi jëriñoo moo xam muy ay téere walla nga bàyyi fi barab buy buy joxe xam-xam nii ko sëriñ bi defere taxawale nee loolu rek mu dul jeex da koy fekk fa mu nekk xéewali da ko fay fekk yoolub loolu da ko fay fekk ida maata ibnu aadama inqataa amaluhu illa min thalaas lim na ba ne ilmin yuntafau bi xam-xam bi jëriñ nag ñett ñoo ko séq ki koy jàng ki ko koy jàngal ak fi mu koy jànge yett yooyu koo ca doon baax na soo doonee kiy jàngale baax na soo doonee ka koy jàngal bu doonee ki jàngale baax na boo doonee ka fàggu fa ñu koy jàng it tey taxawu ka ko fay jàng jànge itam ak nos la fay jànge ba mu mën doon xam-xam ba am njëriñ day dugg ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa jooju am na feneen fu mu waxee ne waxuma la wut xam-xam ba am ko di ko jariñoo ba faatu muy dox yool bay dox wutal si ko gannaawam waaye nee na bu la wuti xam-xam taxee jóg képp soobu nga yoon wa jëm aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna am na fu mu waxe it ne euh, gannaaw waxtu wi dafa dafa dafa dafa tënk mën na mën na maa tëb lu bare bare bari ñëw ci li sëriñ bi wax moom ci xam-xam sëñ bi nga xam ne moom la Cheikh mun taxa tooge ab jataayam bokk na ci bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko melal am na fum mu ko tuddee madinatu ilm madinatu ilm maanaam bu ab dëkk bu xam-xam bu ab dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dëkk ba ab dëkk bu mag nag lu fa waaye laaj tamit lu am ci kaw suuf war na faa mën a am waaye moom ci boppam dafa soññee ci ñu wuti xam-xam bu baax a baax a baax ndax ci boo demee ci benn téerim boo xam ne bii ñu bari ñu ngi koy jàng daf ne daf caa wax ne bu kenn di wut lu neex nit ba di ca dajeeg meram suñu borom te ni na loolu la ko koy teg mooy ñàkk xam-xam dal ne nag moom moone ne xultu kuy wut ngërëmul bindeef yi ba nar caa dajeeg meram suñu borom ngal la moom ku wéré dee nga noonee ba noppi doon ko gëmmentu ku wéré doy na sëkk wéré di xel laa bëgg wax doy na sëkk waaye bu ca boolee gëmmentu kooku lu muy xamati xultu wa man talaba ridwan alwara bi suxti rabbihi fa xumrun dukara dal nit ñi naan waaw kay wawkay kay waaw nit ki njariñ lay tax muy wuti waaw wawkay waaw kay ci nit ñi ñàkk xam-xam moo ko teg waaye su amoon xam-xam day xam ne su fekkee da nga jub ak kër lëf génne fa di la baw bu la wax ak moom waaye demal wax ak borom kër fa laysa yugniika ridal xalqi ida lam turdi mawlaaka faxid an zalida dal na it de moytu di seet num juba gi seenum xel ndax loolu xam-xam fekkewu ko ñi laa ko rek ñi laa ko sentire déedéet wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama xakama fiihi rabbu sama fiihi mutlaqan rabbu sama wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fiihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala taallu ala ibadatin taalluma qaddim ala ibadatin taalluma nee na bokk na ci njariñi xam-xam ruuj lukkat ji ba liggéey ba sotti te jubluwoo ko ca neen ak neen la waaye lum tuuti tuuti te nga di ko def bul xam la nga cay amee waaye xamal fa nga koy teg euh, ndax nit ñëpp buñ maase woon naan acam acam acam ndax seen ñàkk xam loolu bul ko faale waaye la ngay def xamal fa nga ko teg rek su boobaa loola njëriñ tàmbali na lu dogati ba faw bay dugg ci li Yonent bi sallallahu alayhi wax ne ku fi bàyyi xam-xam bu ñuy jariñoo wala mu bokk ci ñay sottal xam-xam ba da gis ci jamono koo xam ne day ŋaat ŋaat ba ñaq tooy xib laxasaayu ba mel ni nguru sëriñ bi dana soxla wut ku mel noonu kim soxla mooy koo xam ni kii day sollu set wicc defaru ba jekk te la muy kër kër yi ne kookee loo ko ci laaj mu xam ko ki ma jëkk wax mooy koo xam ne day laxasaay ba mel ni nguuru te la muy def xamu ca dara waxuma la xam ca dara waaye sax boo ko ne ku la ko sant du xam kum doon moo tax mu ne ku jóg di wuti lu baax la yàlla yor te jàngiwut dëgg la naam wut naa ki ma jëkkoon a wax am na wéri di xel waaye moom daf caa dolli sax di nelawut waaye daa gàttum xel dolli ca wéri di gàttum xel wa man tajarada li taaati l jalil qabla fa umru la nabil jamono nag jax ku nekk bay boppam fi barab sëriñ bi boo déggee wooteb sëriñ bi sëriñ bi woote wut sëriñ bi daa am ndigalul woote moo ko wax ca Mbàkke Kajoor shaafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa bi qawlihi rabbi asxaabaka bilhimmati wala turabbihim bi dars xam-xam bi may junj noonu naka jekk daa amoon fi ko fekk waaye moom lam ca am muy xaas mooy da caa am ndigal daa am ndigalul jàngale ba noppi bu la jàngalee ba noppi sañ laa topp ba xam yaa ngi jëfe wala jëfe woo ndax nit daana jàngal nit ba dajale mbooloo mi ne leen li ma xamoon xamal na ko ko waaye ndax dana mën a waat ba xam mbooleem lañ digle dana ko def wala mbooleem lañ tere dana ko bàyyi loola jëf eh, yombuta mën a waat moom nag mu am digalul képp koo xam ne jàngal na la ba noppi bu la neexee ci sa coow bare nga jox ko sañ-sañ ci sa bopp lépp lu xam-xam laaj su su ko séenee tegtal la ko maanaam jëfe ko lépp lu mu la séenee nga nekk ci sa waroo caa nekk mu ne la a ah, nga geesu ko mu ne la o oh, oh, du noonu loolu nag ba sëriñ ba fi sëriñ bi nekkee la muy xat-xat ci ak dundam dund gu gàtt ga ndax lim nekk ci coobarey boppam donte kenn du kenn du ne ci coobaree boppam waaye lim ne ci di dem ak dikk te kenn téewu ko kenn jàpp ko boo ko dendalee ak liñ ko téye diggante bu sore diggante bu gàtt gàtt lay doon ndax ku am juróom-ñaari fukki at ak dara la téyee fanweeri at ak juróom daanaka ñeent fukki at nga am ci sa bopp yoo xam ne sax ñaar fukki at ya ca la la taxaw temm ware daanaka ñaari fukki at ya ak juróom-ñett waaye nag la sëriñ bii waxoon di Cheikh mun Mountakha ba muy woote di teg doj wu jëkk ca jàngukaay bii nga xam ne moom lañ fas yéene ubbi ba mu koy wax maa ngi toog ci ginnaawam kenn dox sama diggante moom ba muy wax ba naan nañ ko yëkkate ci kaw bu mu laal suuf xamoon na la sëñ du bëggoon muy jële fi xiila ak xaala fas yéene képp ku di jullit bala ngay doonub jullit nga doon nit nga xam ne xam-xam la nit di ñàkk mel ni oto bu paan xam-xam la nit di ñàkk mel ni courant bu coupé dara du dox xam-xam la ñàkk ni nit di ñàkk daanaka faatu te fekk mi ngi dund kon ba fi sëriñ bi jógee ba léegi si kenn ku ci nekk ak tolluwaayam ŋus ŋusi na ba def kéemtalaayu kàttan moom nag bi ñëwee dafa tase ak jamono joo xam ne caawa gi dafa saaw fenn fu nekk waaye bay fa boppam di seet nam juba ci am xelam di seet nam ko santiire di seet su ko waxee lam cay amee ak su ko waxut lam koy xañ kese loolu nag laalante wut sëriñ bi dara dara dara dara looloo tax nag moom ci jëmi boppam mu ne ñukk ay yitteem jële naa ci koo xam ne ku wér la mu ne jataayam bi bis ba mu toogee ba fi mu toll nii tàmbali lu tàmbaliwu fi boppam loo xam ne àgg na amatul yitte lu dul xettali nit ñi nit nag boo ko bëggee xettali danga koy xamal danga koy xamal boo koy xam-xam dem na ba àgg ci aaya aayaat yooyu ñuy waxe ci alxuraan naan nangam araam na ku ko lekk nangam araam na ku ko lekk boo demee suratul maida xurrimat aleykum almaytatu waddam wala hamul xinsir ba àgg ci ya nga xam ne daganal na ku ko lekk boole na ci yam daganal ku ko lekk loo xam ne sab xaj moo ko dem jàpp ko fekk danga koo xamal ba mu xam nu ñuy jàppe dara ak fuñ koy téye ba andil la ko te du loru nee su looloo ci ay loxoom it yebal ko ne bisimilah yebal ko mu dem kon foofu la xam-xam toll fii nag la jëlee la fekk jamono moom waaye dox na ci jéego boo xam ne bi yàlla na ko ci yàlla may ndam dañu fekk ko buñ jàpp ne Tuuba la nekk jànkaayu murit yi la walla jànkaayu sénégalais yi la xam-xam universel la tënkuñu ko fenn fu waay mën a jàppe lu waay xam ci luy tax mu dox lu waay am ci luy tax mu mu dox loolu sama waxe bopp la liggéey baa ngi nii di soog a door bu saxee ba sax mbooleem ñii ñuy taseel ci mbedd mi di leen xool di ci limaale mbooloo moo xam seen ñu nikku ca dana dàkk kon noon ngi koy ñaanal suñu boroom bàyyil na ko fi te saa bu xoolee gis ñu ci ginnaawam te liggéey bi ñu tàmbali ko ci jàmm euh, tabarke mujj ci sëriñ bi daane ko ñaan ci ëpp sëy daana wax ne yàlla na ci jàmm jëkk barke mujj ci bii yàlla na ca bokk yàlla na génne ay kaang ak i fóore ak i mufti sax ak lépp lu amal nit njariñ tañ di ko fa jàng yàlla na njariñ li tasaaroo ba wër adduna bépp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu